attaché militaire wala attaché de défense grade yi lay am colonel lieutenant colonel gën kaa sori mais am na réew yoo xamee ni ils prennent des généraux yóbbu leen ci ambassade ñu doon attaché militaire la Suisse ay généraux lay jël généraux pour def leen ay attaché militaire ci ambassade yi ñuy yeble euh, ci wàllu corps diplomatique ci yenn ci ay réew euh, d'abord il faut préciser que c'est pas la première femme muy am général bu ñu def attaché militaire wala koo xamee ni nekkoon na attaché militaire te yore gradu général le général Ibrahima Gabar Diop nekkoon na fi attaché militaire ca Arabie Saoudite ca Riyad donte ba ñu koy def attaché militaire boobu àggugul ci gradu général boo xamee ni dafa jiite ba nekkoon sax ku danoon ak président mais euh, daanaka euh, deux ans après am na euh, ñeneen ñoo xamee ni def nañ leen ay attaché militaire peut-être àgguñu woon ci grade général mais souvent bu ñu lay def dañuy xool bu dee général la day fekk nga nekk à la retraite gis nañ fi général boo xam ne dañ ko dénkoon euh, les nouvelles installations les nouvelles euh, installations portuaires ancien général boo xam ne moom lañ ko dénk gis nga la carrière du militaire c'est encore comme li ma doon wax sànq ci magistrat yi c'est le président qui nomme au poste civil et militaire loolu la constitution bi wax est-ce que wàññi la bu ñu ko wàññi c'est une bonne interrogation il faut que nit ñi gën ko leeral ci wàll woowu mais il faut quand même ñu xam à côté que fan lañ ko yóbbu Inde c'est l'une des cinq premières puissances mondiales ci wàllu ñu fa dëkk bokk na ci réew yu ëpp doomu aadama yu fa dëkk boole ci sur le plan même militaire dafa bokk ci ay puissance militaire Inde ci yi gën a mag ci àdduna ñu ne la dañoo jël ab général yóbbu ko fa pour mu nekk attaché militaire lan mooy attaché militaire wala attaché de défense ci biir ambassade da ngay jëflante ak réew moomu ci ay question militaire am na coopération boo xam ne bëgg nañ ko tàmbali tàmbali woon nañ ko sax mais bëgg nañ ko gën a ñoŋal ci diggante Sénégal ak Inde diggante Dakar ak New Delhi sur tous les plans sur le plan commercial Inde mooy deuxième pays bi nga xam ne moom mooy gën a jëflante ak Sénégal ci wàllu échange commercial tey bu ñu lay wax naan la ay ceeb bu Pakistan jógul Pakistan ay Inde lay jóge lu bari Inde lay jóge ci façon bu ne sur le plan militaire ñu am taxawaay boo xamee ni ñun dañuy jàngee ci ñoom comme ñoom it ñuy am loo xamante dañ ko jëlee ci ñun ci wàllu jàng sur le plan militaire bu ñu fa yebalee général boo xamee ni ci wàllu renseignement Inde bokk na ci puissance yi gën a kawe ci wàllu renseignement militaire boo jëlee ay Israël jël ay États-Unis boole ci ay Angleterre euh, France ci tuuti Inde bokk na ci yi gën a kawe ci wàllu renseignement militaire ñu jël koo xamee ni yow renseignement mooy sa liggéey nga doon général yóbbu la foofu mën nañ ko jàppee sanction pour ñenn ñi mais man. j'aurais bien voulu entendre peut-être même bu fekkee ni c'est presque euh, utopique euh, la grande muette sur ce sujet dafa am ñoo xamee ne dañ leen dénk parce que le président de la République choisir na ci euh, lu jëm ci gendarmerie jële ko fi nekkoon teg fa ku fa teg jàpp ni peut-être wóolu na ko mais ba ci son aide de camp dafa ne armée yónnee leen ma aide yónnee leen ma ab aide de camp ñu jël ab colonel dénk dénk ko ko mu nekk ci ginnaawam comme ni premier ministre amee aide de camp bu jóge ci armée bi nekk ci ginnaawam euh, yooyu yëpp donn loo xamee ni président moom mooy nommé ba tey constitution loolu la wax ndax jël na ab général yóbbu jël beneen général teg ne ko yow yaay léegi ku yore armée de terre muy le général Maguette Ndiaye ñu jàppee ko sanction c'est possible mais jusqu'à preuve du contraire moom moo am sañ-sañu nommé mën na am juumte am parce que y a certains qui le disent que peut-être que dañ ko joxul les bonnes informations wala dañu ko xaw a même pas manipuler par rapport ak lu général euh, Kandé wala moom ci wam moo choisir ne ni dama bëgg beneen approche bu bees par rapport ak yenn réew yoo xamee ni ëllëg war nañoo jëflante déjà sur le plan diplomatique mu ngi wane ni mbir mi du France rek ba États-Unis rek Afrique laa jiitu ci voyage am jëflante ak yeneen i réew asiatique wala yu bokk ci est yu ci mel ni ay Inde yooyu ci réew yooyu pour d'abord privilégier suñuy rapport parce que même sur le plan économique am na ay rapport yoo xam ne am nañ ko yu am solo c'est un débat boo xamee ni euh, boo xoolee bu suba on va revenir sur ce débat dans les journaux parce que dafa bëri euh, lu ci ëlëm xelu nit attaché militaire c'est vrai am na importance mais est-ce qu'un général war nañ ko fa yóbbu c'est une interrogation d'habitude colonel la lieutenant colonel yenn grade yenn officier yi ñoom lañ fay yóbbu ak seen wàlluk expérience mais pourquoi un général aussi expérimenté ci réew bu mel noonu euh, ndax dañ koy euh, daanaka nasaxal wala dañ ko bëgg a dàq ci loolu loolu tamit c'est une interrogation mais li wóor mooy jusqu'à preuve du contraire c'est le président qui nomme au poste civil comme militaire am na ci sañ-sañ maintenant nag interprétation mën naa jóge ci ku nekk. d'accord merci beaucoup beneen beneen point bi xam naa ne peut-être